bureau 14 waaw liiral ma. Yewwi Askan Wi. waaw. 52. defar sa gox. 7. liggéeykat yi. 2. wàllu Sénégal. 9. gox yu bees. 10. buntu bi. 25. ngor. 23. Benno Bokk Yaakaar. 22. si Guin Thiès onze gëm sa bopp dix penco deux jàmmi gox yi cinq waa Thiès trois ànd jëfal sa gox deux li mo xawon ci ban ban ki ban bureau fim tolni bureau numéro 14 moo amoon waaw ok bureau numéro 14 mom ngeen jël non, mom lañ am li ci information